ومن استرشد برشدهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين خدام الطريقة التجانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلين دنيو دلين بالواق دلين نعنى التوفيق فسيني أندقين تي سنو تفسير القرآن الكريم نيجي سورة الشعراء ñi ngi woon ci yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ba muy ñaan ba muy ñaan boroomam di wax ne yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma nga jéggal sama baay ndax kat moom sama baay tax ndax kat moom bokk na ci woy sànku ñi maa ngi lay ñaan ëllëg yowmal qiyaam yàlla boo ma geccal waaw ëllëg bu ñuy dekki bis ba nga xam ne alal du jariñ dara dom du jariñ dara waaw lulul dal li mana a jariñ daal mooy nga indil yalla xol bu wér waaw xol bu mucc ayib neena bu boba ñu fessel aljanna te aljanna kat ñeelul kenn kudul way ragal yalla ñi ñu jegesil aljanna dal di fessel safara te safara ñeelul kenn lu way bewña bu ñu ko fesalee nag nee na wa qiila lahum aynama kuntum taabuduun nee na wa qiila lahum ñu wax leen ñoom ñu weddi woon yàlla ne leen aynama kuntum ana la ngeen nekkoon taabuduuna daan ko jaamu ana la ngeen daan jaamu min duunillaahi wolif yàlla yooyu ngeen daan jaamu te du yàlla hal yansurunakum ndax mën nañ leen a dimbali aw yantasiruun wala ñu mën a dimbali seen bopp yéen a ngi doon jaamu ay bantaki xeer yoo xam ne mënuñu leen a dimbali te mënuñoo dimbali seen bopp sunu boroom nee na fa kub ki bu fiiha na fa ki bu ñu daldi leen këpp waaw maanaam xërëm ya ñu këpp leen fiiha ca safara wa hum ñoom walxaawuuna ak way bew ja mooy ña doon jaamu waaw xërëm beeg ka ko doon jaamu yépp ñu boole ko këpp ca safara wa loolu mooy antum wa ma taabuduuna min dunillahi xasabu jahannam antum laha waaridun nee na ñu këpp leen ca safara wa ñoom ñépp wa junuudu ibli iblisa ak soldaarus iblis ya ajmauna ñépp ñi bokk ci jinne ci soldaaru iblis yi ak ñi bokk ci nit ñi ci soldaaru iblis yi nee na ñoom ñépp ñu këpp leen fa buñ leen fa këppee nag nee na ñuy xuloo waaw qaalu wahum fiha yaxtasimuun tallahi in kunna la fi dalalin mubin waaw buñ leen fa këppee ñuy xuloo qaalu ñuy wax te ñoom kat yaxtasimuuna ña ngay xuloo fiha ca safara wa lan la ñuy wax naan xuloo bi waaw waaw maanaam fiha yaxtasimuun loolu jumla boobu aarida la mais la ñuy wax mooy tallaahi in kunna la fi dalaali mubin moo tax nettaliwu xuloo bi lan la waaye ña nga fay xuloo waaye ci yeneen saar dana la nettali wala bokk ci suuratu Ibrahim dana la nettali nu xuloo bay demee ñuy xuloog Iblis naan ko lii lépp yaa ñu ko teg mu naan leen déet mankat seen boroom da leen a digoon dig bu dëggu ngeen weddi ko ma dig leen digub neen ngeen gëm kon nag bu kenn yedd sa morom bu ma kenn yedd yedd leen seen bopp moo tax sëriñ Cheikh Tidiane si radiyallahu anhu wax ne waa safara dañuy xuloo rek dañuy xuloo rek ndax euh, boo seetloo oto oto bu yebee ba mu xat coow la na muy bare xuloo ba puusal fii yaatal leen seen xol yi randul nii nangam nangam nga xam ne feek oto bi depaarul ba mu yaatu rek nit ñi dañuy xuloo rek jahannama noonu la mel dafa xat dafa xat ak ña fa nekk limuy reey reey limuy li muy xóot xóot day xat ak ña fa nekk yàlla moo koy defee noonu su ko defee dañuy xuloo rek sëriñ Cheikh nee nañu yaa ma yaa ma buux yaa ma mbëkk yaa ma def sa poqtaan yooyu yëpp xat rek xat rek ko war sunu borom ne buñ fa duggee xaalu ñuy wax waxum te ñoom ba wax yaxtasimuna ña ngay xuloo safara wa di wax naan waaye la wax mooy tallaahi ñi ngi waat yàlla ne in kunna ñun day nekkoon nañ la fi dalaalin mubiin ci ak réer gu bër ndeke ñun kat lañu nekkoon jagul kañ id nu sawwiikum ba ñu leen di yamaleek bi rabbil aalamiina ca borom mbindeef ya ñun day jamono bi ñu leen di yamale yéen yéen bant yi yéen xërëm yi jamono ba ñu leen di yamaleek eh, rabbul aalamiina booba de ndeket ci cànku lañ nekkoon wa ma adallana illa al mujrimuun wa ma adallana sànkuñu illa al mujrimuuna lu dul kàccoor yi waaw saay-saay si rekk a ñu sànk léegi nag fa maa lana min shafiin fa maa lana ñeeluñu min shafiina ci ay way ramm léegi maanaam fii moom kenn duñu fi dimbali waaw amul ku ñu fi mën a ramm fii aji ramm amu fi wala sadiqin du jaagin ne ab xarit xamimin bu di aji ñeewantu amu fi ku ñuy ràmm amu fi xarit bu ñuy ñeewant amu fi ay aka neexoon aka neexoon ñu am fu ñu mën a jaarale delloowaat ñu ci àdduna te sant ñu lan ñu santoon kon danañu soppi de kon de ni ñu def ba dugg fii duñ ko defaat falaw anna lana karratan fa nakuna min al muminin naan falaw anna lana aka neexoon ñu amoon karratan ak dellu ca àdduna fanakuuna ndax ñu bokk minal muminin minal muminina ca way gëm ña maanaam ñun daal bu ñu sunu borom dimbali woon delloo ñu ca àdduna danañ ko gëm te danañ fexe ba lañu ñu defe ba dugg fii danañ ko moytoo def ba duñ fi dugg sunu borom nee na mbirum yonente yàlla ibrahima moomu ma la nettali ak mbirum ñooñi nga xam ne dugal nañ leen safara ndax seeni jëf ndax dañ doon jaamu ay xëram inna fii daalika nekk na ci loolu ma la doon nettali la aayatan kéemtaan bu ñu war a mën a gëmee yàlla waaye nag wa ma kaana aktharuhum li ëpp ci ñoom gëmuñu wa inna rabbaka te sa boroom la huwa al azizu rahim mooy ki tedd tedd ngay jafe mooy boroom yërmande gi kon qissa yonent yàlla ibrahim li ci sunu borom doon nettali ci suuratu shuara des waa ngi noonu waaw kon foofu ci des woowu moom lañuy ñuy taxawee su ko defee bu ëllëgee mu tàmbaleek ñun ci suuratu nuux insha allah lii mi ngi waroon a bokk ca leçon bee ñu génnoon waaye dañ doon bañ dollikat yi muy gën a guddal leçon bi ñu ngi jéggulu bu baax a baax ci gàttal gi ba mu ëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon nee na yow ma yow ma bisu penc ba laa yanfau du fa jariñ maalun alal wala banuun du jaagin ay doom illaa man ata allaha ndare ku dikke yàlla bi qalbin salimin ci xol bu wér wa uslifat ñu daal di jegesil aljannatu aljanna ja lil muttaqina ñeel way ragal ña wa burrizat aljahimu ñu daal di fésal jahim lil gaawina ñeel way bew ña wa qiila lahum ñu ne leen ayna ma kuntum taabudun ana la ngeen nekkoon doon ko jaamu min dunillahi ci lu ci yudul yàlla hal yansurunakum ma ndax yooya mën nañ leen a dimbali aw yan yantasirun wala mën nañoo dimbali seen bopp nee na fa kub ki ñu këpp leen fiiha ca safara wa hum ñoom wal xaawuuna ak way bew ña leen doon jaamu wa junuudu iblisa ak soldaaras iblisa ajmauna ñoom ñépp ñu këpp leen ca safara wa qaalu ñuy wax wahum te ñoom yaxtasimuuna fiha ña ngay xuloo ca safara wa naan tallaahi waat nañ ko ci yàlla ne in naa la fi dalalin mubin ñun day ci ak réer gu metti lañ nekkoon ci réer gu bér lañ nekkoon id nu sawikum bañ leen di yamaleek bi rabbil alamina ci borom bindeef yi wa ma adallanaa ñun daal sànkuñu illal mujrimuuna lu dul way kàccoor ñi rek way saay-saay ñi ñooñu ñooñu sànk fama lanaa amuñu min shafiina ci ay way ramm wala sadiqin du jaagi nab xarit حميم بود أجي أم يرمده فلو أن لنا سنو أمون كرتن أقدلو فنكون كون داي دانا نبوك من المؤمنين تواي غمنا بنيو دلوون رك دانا نبوك تواي غمنا إن في ذلك لا آية وما, وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز عزيز الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك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 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله